seen diggante miinante ak xamante am na ci ak jàmmoo Assane Ndiaye di ko delloo njukkal di ko delloo te tey njukkal muy maire Medina drapeau bu mel nii maire bi toog loo siy wax. waaw dañuy wax ni rek euh, drapeau bi dafay nekk drapeau de la confirmation. yónnee joxe ay instruction conseil municipal bi ñëw teewal ko fa boobu mu ngi ci loxoy buur euh, tey jii encore mu ñëw feddaliwaat kóllëreem digganteem ak Assane te lépp nag dafa fekk man ma fekke ko. édition yëpp fii yàgg naa fi ñëw di présenter drapeau monsieur le maire Bamba Fall donc bu nekk euh, suma xarit nekk suma wëllëre nekk nit ku nga xam ne ñun dañ ko naw ndax courage politique am ndax i tamit bëgg Médinaam nit bu fekkee da nga nekk ci gox ah da ngay wone euh, lu tax gox ba jàpp la lu tax gox ba bëgg ko euh, te li ma gën a neex ci moom mooy boo ko tuddee drapeau doo gis mukk mu def cortège ay fukki oto juróom-ñaar fukki oto jëm stade boo ko tuddee drapeau fii lay déparé romb mbedd Médina yi doxal boppam ba ñëw stade bu làmb ji tasee mu defaat la même chose donc loolu day wane ni moom euh, juboo na ak ay mbokkam juboo na ak waa goxam parce que maire bu nga xam ne jege woo say administré juboo woo ak ñoom ñi ma woo tambaambaalu ci mbedd yi di dox ay kilomètres te kenn interpellé wu la kenn waxu la dara donc ñun dañ koy jaajëfal rek ci jàppale bu muy jàppale làmb parce que ñu tuddee le drapeau nga nangu ko loolu xeetu jàppale làmb la te ku ne xam na parrainage ni mu méttee mais day jël lépp ak lépp lu nga xam ne war na ci bés bi mu jàppale ko Assane te ku jàppale Assane jàppale nga mbër yi ku jàppale mbër yi jàppale nga jeunesse su Sénégal loolu moo waral suñu teewaay tey. làmb ubbi na grand mu mel ni xol yi tamit xol yi bég amati na. waaw am na man. Euh, Euh, bi ma demee barki démb si làmb ji sama xol dafa sedd ndax bi ma gisee vraiment journée bi nga xam ne waa Rent Dakar organisé nañ ko ak mobilisation bi am ak engouement bi am mooy wane ni gars yi namoon nañu làmb lu jiitu loolu sax euh, ci lutte traditionnelle bi nga xam ne tëggoon nañ ko stadium Iba Mar Diop Diack euh, boobu yi tamit boo ko seetaanee xam ne gars yi namoon nañu làmb donc làmb dafa nekk lu nga xam ne tey mooy suñu aada mooy suñu cosaan làmb mooy po mu nga xam ne doom du fa fekk baayam naan ko bàyyi loo fiy def doom day ànd ak baayam ñëw seetaan si ko bu ñu paree ànd dem loolu làmb moo ko mën parce que làmb moom moo bindoo noonu euh, donc mu nekk sport bu nga xam ne war nañ ko gën a fonk war nañ ko gën a dooleel euh, jamono yi nag metti na trop ci làmb ndax ñaari at mbas mi ñëw mbas làmb ji rëppeel ko ba mu def quatre appuis saison daaw bi moo ci gën a metti ren ñu démarré waat ko yàlla dogal mbas mi di wàcc ba tey jii bi may wax ak yow benn cas am loolu wane na ne mbas mi mi ngi dem yoonam mais nag comme jeex na mën na am ñu ko yàlla euh, beneen vague ñëwaat balaa muy ñëwaat waa axlu làmb ñoo war a adapté wu defal programme bu nga xam ne ak lu mënti ñëw du ko yàq parce que il faut apprendre à vivre avec le virus te virus bi mi ngi fi mais bu mu ñu teree liggéey bu mu ñu teree def suñuy activité fagaru nag moom moo gën faju dañuy fagaru def programme bu nga xam ne dañu koy proposer autorité yi ni leen lu mënti xew làmb bu mu taxawati ñun lii lañu ñu proposer comme protocole sanitaire ñu doxal suñu ay activité daan jërëjëf nekkoon naa Medina daan jaay ci marché bi comme marché ambulant mais dama la daan gis man foofu laa la xamee ngay dox ak sa tànk di dugg ci biir marché bi te doo ànd ak garde kenn du la wër loolu lan moo koy may maire boo tooñul kenn ameloo kenn soxla lu ngay laa xam tooñu ma kenn amelu ma kenn moom dama laa xam. sa diggante ak Assane Ndiaye. sama wóllare la la wóllare gu yàgg la moo tax jàmm rek la yem mu neex la. sa ma neex maa ko bëgg. bu baax baax. drapeau bi ku ko gagné lan moo la ciy fekk. ay xéwal. drapeau mu mel ni Assane Ndiaye moo tey woote fii ab daje drapo Bamba Fall. waaw ah, Malick Thiandoum wax na wax na ci Bamba ba Bada Dione wax na ci Bamba Fall yow itam defe naa ne yow yaay ki nga xam ne nag yaa waral coow li ndax yaa ko tuddee drapo bi te bii nekkul bu njëkk sa digganteek Bamba Fall lan la parce que Malick Thiandoum nee na ma nekk na ba prison sax nga tuddee ko drapeau kon daa mel ni kon ànd boobu àndu dëgg la. waa lépp lu may def rek. si kàttanu yàlla ci dëgg laa koy lal. parce que dëgg mooy jëkk te mooy mujj. yaa ngi dégg Bamba dama am cofeel ci moom mu am cofeel ci man yaakaar naa ne deuxième édition ba prison la ko fekk kon nit booy ànd moom bu neexee ànd ak moom su naqaree ànd ak moom mu nekk nit ku baax nag ay waxam du ay waxi politicien de lu mu la wax tey bu subaa loolu lay def yaakaar naa ne ko ànd ak juróom-ñaari at xam nga ko te bii moo nekk septième édition mu nit ku dëggu nit ku dëgg nangoo liggéey nit ku gëm boppam te yaakaar naa nag euh, góor bu nangoo liggéey gëm sa bopp fi nga dëkk li nga am nga def ko fi kooku yomb naa jàppale nit ku baax la te wallaayil asim dama li ñu yor yombul buñ sàggan mukk ba leen di réer nañ téye bàmba fukki loxo juróom kenn du moom waaw jaajëf Cheikh dama lay laaj ci côté organisation bésu làmb ja parce que yow ku wax Baol production wax la yow ak ñoom Daouda ak ñoom Alaaji Ndiaye ak gaa bisu làmb ja nu mu maanaam lu ngeen di indil amateur yi. Babacar sant yàlla julli ci yonente bi sant Serigne Touba bu baax a baax a baax nit moom boo xamee fi ngay jaar rek jaaraat fa du métti Iba Mar moom ñoo ko moom boo fa ñëwee di nga gis loo mësul gis. yéen moom Iba Mar la Fallou Ndiaye di bañ bàyyi leen loolu Fallou Ndiaye nee na Fallooy borom Iba Mar. non Fallou ci Baol production la bokk Fallou membre la. Fallou membre la. moom Iba Mar maa ko maa maa ko nommé lom la Iba Mar Fallou Ndiaye. xalifaam moom nangu na bu yàgg. nangul Assane jox na ko Assane na ko moomoon léegi mais jox na ko Fallou. bàyyil kañ so yàggatul la 24 ma wan la ne Fallou mooy loolu emprunté la am nañ benn combat bu mag boo xam ne mën na sotti ci diggante bi waa balay boobu ak yeneen yoo xam ne dina gisaat beneen dikku cuun buñ mësul gis ci làmb ak Bamba Fall léppay nekk. maanaam combat mag boobu bu sottee ci làmb jël lañ koy bëri la 24. non dañ koy présenté dem ak moom mois de décembre yàggatul dara incha allah. combat bu rëy rëy la. bu mag a maga maga mag a mag bu ñëpp di xaar. lu gën foo ngeen ak mbër yi. tuutee ci tuuti rek yàggatul lu garaaw laa la yàggatul dañoo miin yoon bi dañu miin yoon bi xam nañ ko bu baax a baax a baax buñ të buñ tëddee di nelaw sax feesali ba maar loolu. ah entrée yi mën ngeen cee ñëw ticket yi. non 2000 cinq 5000. Bamba Fall parce que jënd na billet yëpp ah man am na nu muy demee sax ñu tijji porte yi loolu méttiwul mais dinañ gis lu garaaw Messi ngi nii Messi loolu yàggatul numéro 10 lu garaaw. yow sa waxi far yooyu alaaji moom day daw caméra alaaji alaaji <laughs> alaaji <laughs> Assane Ndiaye mais mais mais dina am lu ma la laaj parce que lamb ji dafa bëri woon problème yu ci amoon coow du am ak dina am du am dina am ba ñu déggoon sax ci ñaari mbëri daa am na daa daa mel ne am na mbër boo xam ne sax lankoon na ne moom. est-ce que bëggati woon na sax bëre combat bi. waaw xam nga euh, borom gémmañ guy naaj olof Ndiaye ne du wax jàmm nit ku mer soo ko dékkee micro rek foog mu wax. mais xam na ne mënoon na ci contrat di si génnaat man ñëpp samay rakk lañ tey ci suba rek daaw daa expliqué na ma ma expliqué ko mu ne ma non danga ma waroon woo ma ne ko nan laa lay wooyee c'est mon frère nga gaawtu wax woo ma ne ma Assane léegi lii laa bëgg ma def loolu. nga gaaw tey wax mais man xaalis du ma boole nit ndax ëllëg daa jar a sàmmoo. général lii déggante bu baax. non général gañ nañ déggante. tax te nga tëgg ko nag ba yegg si fi. woowu ma woowu ko franchement. est war naa am ci ñaar ñoo xam ne ñoo seq contrat. d'accord warul am man maay grand frère am. non su ma ko soxlaan dama koy woo. mais li nga xam ne moom laa koy soxlaa dafa ma am ñu ma délégué ci ñooñu muy Daouda muy. Euh, Euh, Daouda muy baaxum ñooy seen menacé ndax musuma wax ak moom ci dara daf ma daan nam wooma wax ñu déggante wala mu soxla dara wooma ñu déggante mais lépp lu ma soxla si moom Daouda la may booleel wala baaxum finalement lépp lu mu mën a doon rek ci nii lay mujjee quoi yaa ngi dégg yoon boo si nekkee jarul bras de xamal ci li nga nekk rek taxaw loolu rek la mais nag yaakaar naa ne mu ñëw ñu def yaakaar naa ne si moom la ëpp njariñ la am njariñ ndax da nga koy soxla mu lay soxla na ma sax bu ma nee kar dama grand lii ak lii ma def loolu waaw ah, mais lé mais yow foo boo ko tëggee tam da nga ci yaakaar xam nga yéen ñaar weccoo la rek kul bu nekkoon produit bu lamb doo ko soit ko déggoo li ma la wax su ma gisoon ci moom avenir du ma nekk ak moom mais su ne ko booy lii ak laa soxla demal defal ma ko wala may ma ko mais moom boo soxlaa dara daf ma war a woo dama lii ak soxla na ma ba taay mi da balla a ngi déggante waaw de tuuti tuuti rek comme ça rek cinq plus cinq la rek waaw ñoo kon ba dimanche la 24. non wax ji coow li mën na bëri lool mais waxtaan lay mujjee déggoo te wallaayil asim du ma jàkkaarloog nit mukk di ruus wala may sëgg lépp lu ma war a def danaa ko def lu ma leen war a jàppale dinaa leen ko jàppale sax yee ko laaj ñoo ma laaj Momo Ngom ak euh, Mbayang Loum yaa ngi dégg waa kër Pape Seck euh, Ndiki Thioune Moussa Diouf. fa ne ko organisé yow tamit. Iba Mar. mais nu ñuy organisé loolu. caabi ji laa bëgg a tëggluwaat dencaat ko Iba Mar laa bëgg mu saf sap pour amateurs yi.